waaw ci loolu nag dañoo xëyoon gis benn bis ca yaraax bu ñu taal benn ngoon ki nga xam ni mooy Antoine ñàkk jom xam naa ni léegi waxtaanatu leen ko sax Macky Sall noonu lay dafa ak yéen moom nee na cerveau buy lekk ceeb dafa gaaw a fàtte hmm, parce que ceeb bëriwul nutrition quoi cerveau bu koy dundee du jàpp lu bari wala bu jàppee ñaar ñetti fan sax day fàtte bon mu ne nag comme gars yi def katu saal lañ bu leen changé post rek gars yi dañuy fàtte lépp luñ defoon duñ ko duñ sax waxtaan duñ waxtaane ci sax waa ji mais loolu yàggul euh, même pas septembre bii la rek am dañoo xëy ñu woon bis nañu dañ ko taal am ñu génn ne benn rasamaan moo jaar ci pont bi ñaari mais bon nu ñu raconté sax da ngay gis ni ñooñu ko taal matuñu trois wala matuñu quatre parce que benn rasamaan lañu wax benn waay bu njool benn bu ñu ko ni ñu leen décrire ñu newoon ci bis bi ñu leen décrire boo xoolee waxuñu cinq waxuñu six waxuñu sept waxuñu huit mais loolu lépp nag gouvernement bi dafa am lu mu ci jublu woon ak lu mu ci jógoon lu mu ciy jóg mooy Ousmane Sonko la jàpp jiiñ ko terroriste jiiñ ko ne dafa affilié wu ci benn lu mel ni euh, comment dirais-je euh, lien entreprise terroriste affaire yooyu quoi xam ñoom xamuñu luy terrorisme dañuy foowee terrorisme mais politique jaral na leen lu ne parce que ñu ko séqal dañu salté dañu salte trop trop trop trop ay nit yu lañ mais comme fu ñu bàyyeekoo ko déjà ay ñu salté lañ donc c'est normal donc comme Ousmane Sonko lañ jàpp bu ko ci terrorisme bu ko affilié ci entreprise terroriste te loolu lu ñu liggéey lu yàgg la parce que yàgg nañ jàpp ay nit naan contre x contre x plainte contre x plainte contre x bi Ousmane Sonko la mu sa te Ousmane Sonko xamoon na ni moom mooy plainte contre X bi kon gouvernement bi li ñuy togg sénégalais yi ñu dañ ci teg bët dañ ci yàgg di teg bët nit yi di leen wax ni gaa yaa ngi togg gaa yaa ngi togg lu ñu leen ñu liggéey yéen gaa yaa ngi togg lu ñu leen di lekkee gaa yaa ngi togg soos bu ñu leen mariné mais chaque jour alerte ñi nga xam dañuy alerter euh, alerteurs yi dañuy ñëw di ko wax sénégalais mais du duñu def action tant que ñuluguñ leen ci seen soos duñ ñoom duñu yeewu donc ñu yàgg leen wax ni gouvernement bi mi ngi am yu muy togg ba togg bi ba léegi pareegul am na ñu mu am na ñu mu jot a ñulug ci togg bi mais ba léegi des na leen xamal ni gouvernement bi mi ngi waajal ay mbir léegi nag contre x boobu da ko yàgg développé bu muy jàpp ki nga xam ni bu muy rëbb euh, François bu amoon na contre x contre X procureur day génn ne jàpp nañ kenn mais contre X bu ñuy jàpp les forces spéciales am na contre X ñun tuddee force spéciale amoon na contre X muy Ousmane mais boobu ñu ngi koy waajal ñoom ñu ngi koy togg kañ lañ koy jàpp waajooju noonu ñu ne force spéciale ne jàpp nañ tant de personnes et X ñu ne force commando ñu jàpp yeneen nit ne ñi ñëpp ci Ousmane Sonko lañ bokk mais X mu am beneen X encore plainte contre X ne nañuy rëbb x ñu jàpp François Mancabou rey ko ne contre x ñu jàpp di Didier Badji rey ko ne x donc x boobu di Ousmane Sonko ñu koy togg di ko togg di ko togg di ko togg kuñ jàpp rek dañ lay jàpp dañ naan jàpp nañ Mollah Morgun eh x x bu ñuy wër x procureur bi di génn naan leen x mais gars yi ba léegi ñoom comprendre ni x bi Ousmane Sonko bañ ne danget Ousmane Sonko rek jàpp yóbbu léegi nag ne x baa ngi nii nag x bi fu nekk nii ak jàppatuñ kenn ne x nee nañ x baa ngi nii ñu bàyyee leen x bi léegi nag ñoom ñi ngi def x bi nu leen neex ñi ngi jàpp x yóbbu ci kaso ba di ko di ko bàyyi muy souffrir muy muy grève la faim ñu ne ñu ne ko deel ñoom ñoom toog di ko reetaan di di di di fecc di foo naan na faatu yàlla na dee donc ñoom di ko yéene yéene kooku donc ñoom x bi mujj nañ jot ci x bi téye nañ x bi léegi di ko defee nu mu leen neex ne lu ñu yàgg liggéey la léegi jàpp nañ x bi affilié ko ne kii mooy terroriste bi nag ñëpp ñuñ fi jàppoon x bi moo leen di manipuler ñëpp ñuñ fi jàppoon x bi moo leen doon sant lu ñuy def terroriste yañ fi jàppoon amoon na ex bu leen jiite woon di seen papa mu ngi nii jàpp nañ le plus grand terroriste du siècle mooy Ousmane Sonko mooy terroriste bi au lieu nekkatul politicien nekkatul leader politique nekkatul euh, ku yor parti ñu ne kii terroriste la ñu léegi partem ñun jàpp ñëpp ay terroriste la donc partem dañ koy dissoudre parce que parti terroriste la parce que ay terroriste lañ jàpp ñun jàppoon yëpp donc ex boobu Ousmane Sonko la et parti dañ ko liggéey nag ñëwuñu ñu rek dissoudre ko dañ ko liggéey liggéey bu salte sax mais sénégalais may leen temps temps bu large sax ñu liggéey boobu ñu def ñu jàpp ñëpp c'était Ousmane Sonko lañ soxla et son parti donc muñ jàppee terroriste bi entre guillemets comme ñoom ñu ko waxee ne Ousmane Sonko la parce que ñu jotoon jàpp yëpp ci parti am lañ nekk te dañ leen avoué loo dóor leen torturer leen pour ñu wax ni Ousmane Sonko la ndem dañoo lànk ñoom ñëpp mais dañ leen Ousmane Sonko moo leen yónni donc bu ñu jàppee Ousmane Sonko parti parti boobu dañ naan ñun mille vingt ba léegi depuis deux mille vingt trois la commencé terrorisme bi parce que deux mille vingt et un ñi fi jotoon jàpp mu saf mu neex Macky Sall ne ah mais voilà euh, l'occasion fait la larron c'est le moment maintenant ñii deux mille vingt un te mosul leen wooyee terroriste léegi nag ñii ñu jàpp terroriste lañ leen di wooyee. te bu ñu leen woowee terroriste rek dañ leen collé étiquette boobu noonu donc pour mun a dissoudre parti bi éliminer le le leader fàtt trou yi créer euh, def ay ay euh, élection sans Pastef sans Ousmane Sonko parce que ñoom ñëpp ay terroriste la ñoom ñoom ñoom loolu lañ décidé loolu lañ décidé ba léegi nag Sénégal am na ñuy nelaw ñoo xam ne nii lañ da doon waxee nii lii dina ñëw. ñu nalaw ba loolu ñëw léegi nag am na lu ci des léegi yàggatul c'est dans deux mois mooy ñoom dañuy décider def fii ay élection Sénégal te neen day am par force sans benn nitu Ousmane Sonko waxuma la Ousmane Sonko de sans benn nitu Ousmane Sonko du Ousmane Sonko du benn nitam seede yàlla loolu leen décider ñoom dinañ def ay élection sans Ousmane Sonko nii benn nitu Ousmane Sonko nii benn bu affilié ci partem duñ ko nangu donc loolu c'est au peuple encore ñu laat seen bopp te xam ni bu ñu yaakaaree ni ay fiche parrainage moo yóbbu Ousmane ko ci euh, euh, kii bi élection yi dañuy nax seen bopp du dem ci élection yi du fiche parrainage bu fiche parrainage bu doon taw sax te xeexu leen du Ousmane Sonko du dem ci élection yi te benn nitam du dem ci élection yi bu dee nii ngeen ko toogee jàppee ko njaax njàlle tegal seen loxo dugal seen poos wala ngeen tegale ko ne yéen mun ngeen fexe ba Ousmane Sonko wala nitam dem ma xam ne doole nit ma xam ne yéen doole nit léegi nag lu ci kanam rawali bët comme yéen ne ngeen yor ngeen di pexe yu ngeen mën a kurti kurti ba yóbbu Ousmane Sonko wala nitam ci élection yi te nangu leen génn mat des centaines de milliers occupé mbedd yi xare xeex xeex xeex ba loolu bu dee loolu defu leen ko ñu xool ba xam nu wànnante di mujjee gëtam mais loolu tey di suñu problème nekkul lu ñu tax a jóg donc comme ñoom de seen manigance yi ñuy def ak liggéey gi ñuy liggéey ni ñuy éliminer nit yi donc da cee bokk ni bu ñu jàppee Ousmane Sonko nag léegi nag ñu ne dañuy traqué fa la ñuy jëlee léegi jàpp nañ Ousmane Sonko pare ñu ne léegi dañuy traqué waa Pastef yi waa Pastef yi mooy ñi mooy jeunesse patriotique gu Pastef yi ñu commencé di wër ki nga xam ne mooy euh, euh, Demba Demba Demba Touré Ngagne Demba Touré Ngagne Demba Touré yëg daw ñu jóge ci Ngagne Demba Touré mooy Grand Yoff donc ñoom dañuy traqué pépp képp leader bu jeunesse patriotique bu Sonko nga def nga ñàkk a def seen yoon newu ci ñoom bu ñu paree ci Sonko première affaire bi moom mooy parti bi ñen ñoo fa ne teg teg yi ñoom teg nañ leen ay affaire ñoom ñëpp ñu ngi ci ay ay liberté provisoire y a problème léegi nag jeunes yi la ñuy dem ci leader patriote yi patriotique bi mooy ngañ Demba Touré ngañ Demba Touré jot jot signal ba génn ñu dem dóori dem wëri ji ki nga xam ni moom moo nekk fan moom moo nekk euh, Colobane Fass gël Tapée muy Assane Fall di enseignant di professeur lycée bi nga xam ni moom mooy Delafosse ñu ne ayca nañ dem ba ñu demee tamit jël sëf këram bàyyi ko ba mu bougé ñu jël dugal këram ay ci biir école ba dugal fa ay cocktail molotov ñëw na dañ koy jàpp si buñ ko jàppul jàpp nañ papaam mu ngi ci kaso bi jamono ji jàpp nañ ay jabaru frère jàpp nañ ay xale ay liir jàpp nañ ay ñëpp lañ jàpp kër ga yëpp la ñuy tibb ñañ fa fekk ñu ngi ci kaso bi jamono ji présentement donc muy deuxième leader Pastef boo xam ni mooy jeunesse patriotique bi nga xam dañu am force nekk ci koñ yi di di dajale nit yi ñu commencé di traquer léegi nag noonu la ñuy def léegi mu des yaraax presque éliminer nañ quartier yëpp jeunesse patriotique yi leader yëpp lañ éliminé mu des côté yaraax te yaraax dañu am doole ñoom aussi parce que foofu mooy buntu dakaar booy génn Dakar yaraax boo fàttee Dakar fàtte nga fépp donc ñu ne dem nag dugg yaraax ci la ñu dugg ci groupe yaraax bi moom mooy Pastef yaraax ñun ñoom infiltré leen dugg toog ceede seen i mbóot que gis nañ ni xeex bi saa yu amee gars yi mais ñeneen feneen la ñuy jógee ñëw yarax di tàngal mooy autoroute à péage bi yëfu tubaab yee ngi fa autoroute à péage bi euh, et cetera terre bi day jaar yaraax donc ñu ne nañu léegi nag nan la ñuy def pour récupérer yaraax ci la ñu créé ñoom ci seen bis boobu seen faux attentat boobu noonu léegi il faut ñu taqal Ousmane Sonko ci terrorisme ak attentat te attentat musul am Sénégal ñu ne kaaral ñu créé benn mbir boo xam ñun sañu média yëpp pare leen ñu def ko réunion waxtaan ne nañ ko tuddee attentat bu bis bi buñ ko taalee rek nañ ko tuddee attentat ñun ñoo koy taal nag ñoom ñoo koy taal ñoom gouvernement bi ñoo taal bis bi benn kenn taalu ko ñoom ñoo taal bis bi mais il fallait ñu créer benn affaire pour mu tuddee ni Sénégal une première fois dans l'histoire am na attentat léegi nag loolu ils décidé pour mun a dem traquer ji les leaders de Pastef jeunesse patriotique bu euh, kii euh, bu ya bu yaraax donc foofu la ñu yóbbu bis ba ñoom ñu jël seeni nit nit comme ñi nga xam ne ñoom ay ñi nga xam ne ñoo leen doon tiire fetal ñi nga xam ne ñoo nekkoon nervi ay nervi la ñu jël ay nervi ñu jël deux trois nervi jox leen ay cocktail molotov ñoom le gouvernement ñu mise ci oto boobu noonu moom mooy njaga euh, tata boobu noonu arrêté ko yuuxu leen saaga leen sànni fa deux cocktail molotov saaga leen sànni fa deux cocktail dem seen yoon ay ponkal lañ nag ñooñu ay bras ñu am doole lañ ay ñooñu ay nervi lañ ñi taal oto boobu gouvernement bi ñoo leen ko sant te ay nervi lañ dañ leen a fay matuñu trois personnes rastamaan bi la benn waay ji njool yu ceene ba da ngay xool de ay gars yi entraîné lañ ñu du ñuy calki sewuñu newuñu ay ma ay nit yuñ jël lañ ay nervi lañ lañu jël jox leen ay cocktail molotov ñoom ñoo ko taal ñoo arrêté bis bi ñoom ñoo ko taal le gouvernement dañ ko taal rek gouvernement bi après ñëw moo tax bu après ngeen gis sa bëri doog ñëw ñu te kii Antoine commencé foofu la njëkk Antoine